ci recours bi nan la ko quatre sages mënee euh, kii nii jàngat càmbar ko te waroon doon set sages professeur. non c'est vrai sept la ñu war nekk xam nga soo seetloo conseil constitutionnel dañu fa am deux situations empêchement provisoire. ak temporaire ak empêchement définitif. fii empêchement définitif la woon empêchement définitif. kon waruñu woon statuer. très bien waruñu woon statuer nañ ci ñëwaat donc d'abord empêchement provisoire bi. xam nga empêchement provisoire yomb na euh, dañu war a siéger mu am ñaari feebar amul problème wala ñaari ñu voyager amul problème moo tax ma doon rappeler ne empêchement temporaire moom daf daf fi yàgg. dama doon rappeler keroog Kéba Mbaye biñ ko falee président du conseil constitutionnel benn décision rek la signé démissionné première décision bi nekk foo woon Ibou Diaité moo ko présidé deuxième bi nekk foo woon Ibou Diaité moo ko présidé. troisième bi nekk fa woon Ibou Diaité moo ko présidé quatrième bi nekk fa woon Ibou Diaité moo ko présidé cinquième bi la présidé après mu démissionné amuloo problème empêchement temporaire la yomb na ñu prévoir ko te souvent day am conseil constitutionnel souvent trois lañ doon nekk ah trois sur cinq et cetera am na boo xam deux lañu mais fii empêchement définitif la mais empêchement définitif dafa dafa nekk loo xamante ni yombul gérer ñu ngi saisir nañu mu am ko décédé décédé est-ce que day décider rek ñu remplacer ko lundi la décider mardi ñu remplacer ko mënuñu ko donc empêchement définitif yombul gérer moo tax su fekkente ne empêchement définitif dafa am dañ ko war a gérer ba set ñëwaat en restant dans un délai raisonnable. mais légalement. non légalement est waroon nañ ko def. xam nga légalement keroog dafa ne dafa am benn waaye bu ne nañu Ismaïla Madior wax lan moo autorisé conseil bi mu statuer mane nañu waxtam tam lan moo ko tere amul disposition bu wax ne mun nañu siéger waaye amul disposition bu ne mënuñu siéger de dañ ne rek ils doivent siéger à sept. kon vide juridique am na foofu noonu. waaw ma ne léegi su fekkee ne loolu dafa am ñu saisir conseil constitutionnel ñu nekk dans le cas d' empêchement définitif ñu war a remplacer membre yi mane ñaari moo ci am solo ñaar benn bi mooy conseil constitutionnel mënul ne ah ñun de dañoo saisir waaye quatre lañu ñu manqué na trois ñun ñoo bañ ñoo lànk du ñu saisir réew mi conséquence deful loolu. dafa ne ñun set la ñu waroon nekk waaye quatre la ñu quatre dañu gis ne quatre sur sept quorum bi quorum bi mat na ñu ni comme quatre la ñu sur sept quorum bi am na te bëgg dañu bëgg continuité des institutions dañu bëgg euh, lépp Sénégal nekk réewu jàmm dara am fii mais ñun dañuy statuer statuer te loolu amoon naa Cheikh Tidiane Diakhaté bi mu décédé remplacé wuñu ko sur le champ empêchement définitif la woon Cheikh Tidiane Diakhaté toog nañu ay weer balaa ñu koy remplacer. beneen bi gën a am solo xam nga lan la woon day faatu te loolu euh, yenn saa yi euh, dal dafa baax dama ne set la ñu war nekk ñu nekk quatre ma ne dafa am benn période boo xamante ne man dama koy woowee délai raisonnable su fekkee ci délai boobu nommé nañu trois yi complété sept bi problème amul su bëggee ne nag problème day am attention su fekkente nag trois yi dañ fa jógee ñu toog ay six mois sept mois huit mois mais loolu quand même vide la indi c'est pas normal mais ma ni mois. un mois rek ñu bëgg ci indi coow di réew mi xawma lan violation de la constitution mooy li ma doon wax sànq rek bi ñu wax affaire góor jigéen yi ne constitution bi góor jigéen lañ ci duut dara amu ci woon. loi sur le terrorisme léegi ku kii ñu jàpp la non ñooy exagéré moo taxoon ma ne dañuy exagéré conseil constitutionnel c' est vrai que sept la ñu waroon nekk quatre la ñu nekk quatre la ñu nekk saisir nañ leen du ñu bàyyi vide du ñu bàyyi euh, con euh, euh, institution yi wu. ils l' ont motivé néew naa sax ñoom amuñu obligation motivée non juge on juge froid day statuer rek rendre décision yaa jeex na mais ñoom dañu commencé ne oui considérant que nous étions on devions être sept mais on est quatre mais compte de la nécessité de maintenir la paix ils ont été pédagogues courtois élégants même di expliquer ma ne woon c'était même pas la peine mais c'est bien ñu def ko moo tax ma ne il faut les féliciter ensuite ils ont rendu la décision continuité institution yi dem mais le lendemain président euh, Fall 3 yi coow li jeex mm-hmm. mais day nekk coow lu lu ndaw loo xam dañ koy bëgg xëcc di ko yokk ma ne woon nag matu ko loolu laa ko xool. kon ñu mhm. mujjee nag ci sa départ du gouvernement 2019 euh, bokk nga daal si ñi président gomme après présidentielle xanaa dafa am faute électorale boo def wala lu mu la reproché ba reconduire la. sauf que gomme wu ma non xam nga soo gouvernement dafa am yoo xam ne dañuy génn ci gouvernement dem defi leneen am na ñoo xam ne dañ leen di changé man président dafa ma jëlee ministre de la justice yóbbu ma ministre d' état mhm. la présidence mise de la justice nag moo ëpp visibilité mise de la justice yaa ngi ci gouvernement bi mais mise de la fi ma nekk nii euh, président mi ma teg ci wetam pour man mission su ma yóbboon mise de la la su ma yóbboon beneen ministère mission la mise d'état tamit mission la mission boo xam ne daf la teg ci wetam euh, di la traité bu baax membre gouvernement bi yëpp yaa leen jiitu man su ma ñëwee ci manifestation. ñi bokk protocole yaa leen ñi bokk ci gouvernement bi yëpp sama ginnaaw la ñuy nekk ñëpp xam nga kooku dàqu la. ne la yaay yaa jiitu waa gouvernement bi yëpp yaa mm. lu may def yaa ngi toog sama wet manifestation ak su su amee yaa ngi toog sama wet waa gouvernement bi toog fu def laa dégommé nekkatoo ci gouvernement bi mission boobu jóge nga fa mais nag da nekk beneen mission te tamit ministre d'État bon permettre na ma ma am recul di liggéey ak moom ci ay dossiers yu yu am solo waaye tamit permettre na ma am leneen ma am temps aussi pour def politique parce que léegi dama dugg ci politique maa ngi tëngeej di politique foofu. local yi waaw ci local yi je suis candidat. yaakaar ne dinañ la jiital ci Benno Bokk Yaakaar waaw en tout cas nekk naa candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar pour la mairie de la ville de Rufisque. waaw am naa ci yaakaar maa ngi ciy liggéey maa ngi wax ak ndaw yi maa ngi wax ak jigéen ñi maa ngi wax ak population bi maa ngi wax ak notable yi maa ngi wax ak ñëpp euh, pour ne Euh, ñu jiital ma ma mun a nekk candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. mais buñ ko deful nag. mais jàpp naa ne am naa yaakaar ndem nañ ko def. buñ ko deful nag parce que éventualité la en principe. <laughs> maa ngi góor góorlu di jéem di waxtaan ak ñi ma war a waxtaanal ñëpp au niveau de la PR. ak yi ma war a waxtaan au niveau de benn bokk yaakaar même nii su ma paree ak yow damay dem te Tëngéej pour waxtaan ak suñu mbokk yi foofu donc maa ngi waxtaan ak ñëpp pour ñu tabb man ma nekk candidat. bu déggoo amul nag. waaw mais yaakaar naa ne président de la république comprendre na ne élection yi am na solo boo xamante ni dina def lépp pour ñu déggoo. ah mais éventualité la de su déggoo amul da ngay def sa liste bopp wala da ngay bàyyi. jàpp naa ne déggoo dina <laughs> professeur nag hmm. mën wii mën na noo mën na comme référendum. dama jàpp nag ne wii mooy ëpp comme référendum bi ni wii bi ëppee woon. noo bëri. <laughs> noo bëri. Ah, waaw di rafetlu rek émission bi comme émission bi nga doon def Walfadjri je pense yaa ngi ko tuddee woon sortie à l'époque euh, émission bi itam yàlla na mel comme émission bi nga doon def sorti émission la woon comme ni ma ko waxoon sànq bu am solo. thèmes yi nga doon abordé euh, thèmes yu am solo la pour euh, euh, pour le pays mais tamit style parce que style émission am na waaw man j'aime bien ton style style da nga am style émission boo xam ne dinga nga poser ay questions yu pertinentes di nga insister di nga di nga di nga titiller waa ji pousse ko jusqu'à ses mais toujours dans le respect et la courtoisie loolu laa apprécié ci yow. ah ñu kontaan loolu vraiment ci nit ñu accordé interview bi am mbégte lool. Euh, di yaakaar ne prochaine fois bi en tant que maire de Rufisque rek lay lay doon. incha allah moo bokk ci projet yi. ñu am ci espérance di la ko souhaiter bu baax nga réussir ko. Euh, di remercier ñu ñu doon teewlu remercier bu baax équipe bi ñu àndal euh, jaajëfal leen jox leen rendez-vous beneen ay bés ci wax dëgg ci sénégal7.com. point